joxoon naa leen ci misaal xel baaxut xel baaxut léeg-léeg nit feebar nit mu dem hôpital ñu faj ba sonn du wér mu dem ci sëriñ yi ñu faj ba sonn du wér fekk ne dara feebarul ko lu mooy tookee xel ñun bi ñuy jàng dañoo waxoon ne bu leen di lekk ci marché ñi jàng ñëpp xam nañ ko bu ngeen jàngee taalim mu taalim dafay wax ne boo booy lekk ci marché dangay gàtt xel doo gaaw a ndax la lu bari li ngay lekk te am na koo xam ne xelam mu ngi ci li ngay lekk xelam mu ngi ci li may lekk te amul njëg bu jënd mbokk yi ñaata yoon ngeen di gis nit dugg ci oto yor sandwich ak a dangereux ak ci hôpital yor yor banaana di xolli di lekk mos naa ci gis benn xale bu jigéen ndeysaan ñu dugg oto muy yor banaana lekk ba mu yàgg mu jël xolitu banaana bi teg ci tànkam yi ba mu yàgg mu wàcc ko ndànk mu wadd ci biir oto bi civil ñàkk civilisation yow kay ba waroo na lekk sax ci biir oto bi mais nga dem ba lekk ci biir oto bi jël xolitu banaana bi bàyyi ko ci biir oto bi far fas yéene wàcc ma bàyyi ba oto bi taxaw rek ma yor sama loxo jël xolitu banaana bi ndànk def nii daal di ko waddal mu di ma xool man na da nga dégg mu ne paa yi moo garaw te mu di problème waaye fekk ne loolu rafetul mbokk yi boo amee dëkkandoor bul ko lor ci sa cin lu mooy nga xam ne nii dagg caa dimbale danga caa may foofu lañ tënk tomb bu njëkk bi ndax liñ ci mënoon a indi ci ay ahadis ak ay aaya weesu na lii mais comme dañoo waxoon ne diggante tàkkusaan la ak jant bu so ñu am yenn yu njuqati rek daal di ko indi kon biñ ci teg mooy dimbalante borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne wa taawunu ala al birri wala taawunu ismi wal odduwaan bu ngeen di dimbaleen bu ngeen di dimbalante dee leen di dimbalante ci njëkk ak teraanga waaye bu leen dimbalante mukk ci xam ne bàkkaar da cay nekk aaya nag boo xam ne nii bu làmb lu baree baree baree bari la mooy nit ki lépp la koy jàppale lépp la koy soutenir na fekk mu nekk loo xam ne lu neex yàlla la na fekk muy loo xam ni lu lislaam gërëm la waaye nga ne sama wëllëre la tax mu sant la loo xam ne lislaam gërëm gërëmut ko nga ne mënuma ko ñàkk def wala nga ne sama xarit la sama tànt la déedéet nit ki looy looy dimbalante ak moom looy jàppalante ak moom na fekk mu nekk loo xam ne lu neex borom bi la subhanahu wa taala moo tax yàlla ne wa taawunu alal birri wa dimbalante ragal yàlla da koy sos dimbalante gëm yàlla da koy sos amul kenn ku am sañ-sañ wala nga am droit di dimbale nit ci loo xam ne bàkkaar ja nekk l'islam moo ko tere wala taawanu alal ismi borom xam-xam yi dañ ne même sax ki nga xam ne day jaay cigarette cigarette rek bul ko luwee bitig ndax lan comme cigarette dañ ne dafa xaraam ku ko tox am bakkaar yow nga luye ko sa boutique mu di ca jaay cigarette kon kay dimbale nga ko ci bakkaar te alxuraan nee na wala taawunu alal ismi wala odwaan mbokk yi ñaata nit nag ñuy jël ay place di ko luye nit ba noppi kan ko luyee di fa def lu xaraam ku fa kan fa luyee di fa def lu yàlla tere te lijjanti ko mais pour pourtant am na ñoo ko luyee ay jullit ñoo xam ne mën nañoo sellal mën nañoo baaxal mën nañoo jekkal waaye ñun nag li teew rek la ñuy gis waaw moo tax mu ne bu leen dimbalante ci loo xam ne dafay waral ak nooneel tam nag mooy ay nit bu ñu amee problème ay nit bu ñu amee histoire wala ñu réeroo yow fexeel ñëw dox ca tànk yoo xam ne tànk njub la fexeel dox ci yow tànk yoo xam ne day jubale bu mu xaajale waaye nga ñëw wax ci kàdd goo xam ne ba nga ko jógee ko rek safara si gën a tàkk gën a day war loolu jar bàyyi xel la te mbokk yi dimbalante lu am solo la ci ab jullit ndax nit ku nekk bëgg nga ku la dimbale amul kenn koo xam ne say say mbir yëpp mat na ba soxlaaloo kenn lenn déedéet te ñun mënuñoo matal ba su duñ soxlaal yàlla te xam ngeen yàlla lu mu wax yonent bi li wax nee na ku bëgg di am dimbalal yàlla del dimbale jaami yàlla yi ku bëgg am dimbalal yàlla del dimbale jaami yàlla yi yonent bi nee na allahu fi awni al abdi maa maa daama al abdu fi awni aqihi yàlla du dañ mukk di dimbale doomu aadama di dimbale nit fekk nit kook mu ngay dimbale ay mbokki nitam kon kuy dimbale rek yàlla dimbale la xam ngeen yonent bi sax am na benn hadis bu wax mu ne irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi ci kaw suuf su ngeen yërëmee ñi ci kaw suuf ki ci kaw asamaan yërëm leen te mooy yàlla te ñun ñëpp yërmande yàlla la ñuy wuti ñun ñëpp yërwan yërmande yàlla dañuy bu ñu xëyee ci la ñuy xëy bu ngoonee ci la ñuy gontu guddi ci la ñuy fanaan te kon nag ginnaaw dañoo bëgg ñun yërmande yàlla nañu yërmande ci suñ biir moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi ne irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama waaw bi yonente bi waxee ne irhamu man fil ardi waaw kan lañuy yërëm ndax nit ñi rek lañuy ñuy yërëm déedéet ñi ñu war a yërëm bari na de ni ngay war a yërëmee nit ñi noonu nga war a yërëmee bàyyi ma yi noonu nga war a yërëmee xar yi bëy yi mbaam yi fas yi melentaan yi demet demet lépp lu yàlla suñu borom subhanahu wa taala bind dawalal yërmande ci moom ñun nag dañoo foog ne buñ ne yërmande rek ci diggante nit ak nit la aha fas bi nga yor suñ borom tàggat ko teg ko ci sa loxo mu ëpp la doole te bu neexoon yàlla mu def la ngay fas xar mi nga yor dawalal yërmande ci moom jox ko mu lekk ba suur yeew ko ci kër gi jox ko mu naan yaa ko téye yaa ko yeew kon nañuy dawal yërmande ci ñoom bay yi nga yor kasaalika na ko noonu jël aw fas yëpp ko bagaas boo xam ne jéggi na dayo toog ci koom yor ak xiir di caw au lieu nga dawal yërmande ci moom te bu neexoon yàlla mu def la ngay fas wax mu yéeg sa kaw di la caw yàlla teral doomu aadama jox la loola war ngaa dawal yërmande ci moom mbokk yi gis ngeen ne kon nit ñi dañoo war di dimbalante nit ñi dañoo war di yërëmante waaye it nit ñi dañuy war di bàyyiwante xel loolu nag ci li ñuy barastikoo bay sant di gërëm ñi nga xam ne ñooy waa Nestlé defe naa mais man li ma ci jaaxal yaakaaroon naa ne fii danañ fi teg ay ay pot Nestlé foogoon naa ne table bi danañ ci teg ay poti Nestlé mais gisuma benn pot Nestlé fii nii xëy na ñoom ñu ngi ko ñu ngi ko affiché nii rek waaye <laughs> waroon ñu teg fi nag ñetti poti nestale benn ilimaan benn ustaas benn ustaas kon ñoom li ñuy def lu am solo la mooy nit ñi nga dogal leen ndax kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man man fatara saa'iman kaana lahu misla ajrihi xayra annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay'un nee na ku woor ba ngoon jot nga dogal ko nga jox ko mu lekk nee na yow képp ko dogal danga am tiyaabu ju toll ni ki nga dogal am te lu wàññi ci tiyaabu yi ji dara te ñoom defe naa ne loolu lañ programmé mooy joxe ay ay ndogu kon ndogu yooyu ñu fas yéene joxe yàlla na ko suñu borom nangu te yàlla na gis seen borom fay waaye it seen société bi yàlla na jëm kaw société bi yàlla na gën a avancé yàlla na jàppale leen ndax Nestlé yàgg na Sénégal defe naa ne ñu baree bëri xam nañ euh, meew yi nga xam ne nii ñoo amoon Sénégal ci bu njëkk ba léegi kon ñoom tamit yàlla na yàlla jàppale leen ci acte bu am solo bii nga xam ne nii moom la ñuy def. ndax yonent bi nee na képp ku jox nit mu lekk bisub koor rek dañ la jox tiyaabu ji noonu mbokk yi même buñ demee ci jox nit mu lekk képp lu jara fonk la ndax borom bi subhanahu wa taala dafay wax ci ñi nga xam ne ni bu ëllëgee ñooy asxaabul maymana mooy ko bëgg a bokk ci parti droite ëllëg wax naa ko keroog ci jàkka ji man de parti droite laa bëgg a bokk mais dama bokk parti goos dégg ngeen fii nag ci politiciens yi ñi naan ñii waa waa gauche bi lañ bu kenn nangoo bokk ci waa gauche ndax ku bokk ci waa gauche bu ëllëgee yawmal qiyaam waa gauche baaxut de ashaabu shimal ñooy ashaabu naar ñi nekkee càmmoñ bu ëllëgee ñooy dem safara kon kay nañ bokk ci ashaabu euh, droite dañ bokk ci ñoo waa ndeyjoor ashaabul maymanoon ashaabul na gi may wax nii nag ñooñ la yàlla wax ne bokk na ci seen melokaan la leen tax ñu am ko ñu jox nit ñam mu lekk ba suur ndax yàlla suñu borom dafa wax ne aw itaamun wala aw itaamun yow yawmin zi xam ne gëm nañ yàlla bu noppi tey dénkaane lu baax waaye it di dénkaane yërmande ci seen biir ñooñu de suñu borom nee na ulaayika ashaabul maymana jahannana laahu min ashaabil maymana yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne nii ñoo dëkkee ñoo nekkee ci côté ndey yor ëllëg yawmal qiyaam mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wax na beneen a ne wa atimu taama wa sillu al arhama wa sallu bi leyli wa naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam yonent bi alayhi salaatu nee na dee leen ñam nit ñi di lekk jokku seen mbokk gi dee leen julli guddi fekk nit ñi di nelaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu ngeen ko defee tadxuluuna aljanna bi salaam da ngeen dugg àjjana te bu ngeen di dugg àjjana da dangeen di ànd ak jàmm du ngeen am problème xam nga léegi léeg nit am xéewal mais bu la laajee xéewal bi mu mu jaar fi mu jaar ba jot ci xéewal ba bu la ko nettale nga yërëm ko misaal mi mooy lan danga gis fii kenn baayam nijaayam ta tonton xam dagal ko biyee mu ne coppet dem bitim réew ba demee liggéey am wërsëgam am teraanga ñëpp si waaye am na koo xam ne xam ngeen fu mu jaar ci mbëgg mi am na xéewal waaye bi muy gëtoot ci xéewal gi xaw naa dee waaye nag yonent bi nee yii tam ko koy def bu ëllëgee da nga dugg àjjana da buy dugg àjjana ci jàmm ak salaam ngay dugg mosoon naa fi wax àjjanay gàcce yàgg na àjjanay gàcce am na mooy waa ji nga xam ne day nekk ba demee ci muslim addis ba nekk waa ji nga xam ne nii day wax naan ko yàlla mu naa ah, mu ne ko damaa bëgg nga nga sori li ma ñii muy ñan waa safara yàlla xëcc ko ba mu sori waa safara mu ne ko yàlla mun naa ah, mu ne ko xëcc ma ma jege waa àjjana tuuti mu xëcc ko bu jege yàlla ne ko déet dangaa waxoon ne fii ngay yem kat mu ne ko waaw te yàgg mu ne ko dégg nga waa ma gën a jege affaire yi xeeñ ma wala sax ngalawal ngalalu sedd li ñëw ci man yàlla ne ko déet eh waxante wuñ mu ne ko waa jàpp ji rek mu dellu ko xëcc ko mu gën a jege noonu lay def di def ba ñëw buntu àjjana bu ñëwee nag odeur bu neex bi xeeñ gi ak tilim yeeg bis bu sedd bi di ko xaal mu ne ko yàlla mu ne xam ah, ne ko tee nga maa far dugal na affaire bi neex na di yàlla ne ko hee hee waaw kon faral dugg loolu mooy àjjanaay gàcce yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ jëf ju baax yóbbu mu mel ni oustaz gis naa mu ngi xool kii bi de dafa ni adra bi moo tax muy wax kii euh, dafa bëgg a dem na taalibi cheikh yi dañoo bëgg a dem xaaral ma wax benn addis rek après kon ñu xool luñ koy doxalee incha allahu taala bi moo xaw a gàtt yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na eh, ittaqoo naara walaw bi siqi tamra allahu akbar na nit ki mën naa moytu ndiku safara donte benn xaritu tàndarma la xol ndog jot na rek nga am benn doomu tàndarma nga xar ko jël genn wàll gi lekk jël genn wàll gi jox sa mbokkum jullit mu lekk yonent bi nee yàlla mën na la cee musal ci safara aleykum salaam wa dégg nga yéen tamit neen ittaqoo naara wala bi siqi tamra yéen tamit alayhi salaatu wasalaam dellu wax ne tutimu taama wa taqra'u salaama ala man arafta aman lam taaraf nit daal ab jullit daal day joxe ñam waaye it nag day nuyu comme xam ak ko xamut ñu bañ ko def nag nuyu nuyu ndakaaro ndakaaro yow ki nga xam ngay nuyu koo xamul nga romb wéy waaw koo xam daal ne ko asalaamualeykum koo xamul nga romb ko wéy loolu mooy nuyu waa Ndakaaru te nag lislaam waxul loolu de nee na koo romb rek moo xam xam nga ko moo xam xamula ko wax ko assalaamu aleykum mu ne la wa aleykum salaam lii mooy lislaam lii la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale lii mooy sharia lii mooy njikkoy jullit yonente bi alayhi salaatu wasalaam delu wax ne ahabul amali ilallahi suróorun tudxiluhu ala muslimin mbokk yi yonent bi nee na bokk na ci bokk na ci yi ëpp cofel jëf yi yàlla gën a bëgg mooy nga jël mbégte dugal ko ci xolum ab julit mooy kontaan loo nit jox ko mu lekk ba song ba suur kontaan wala nga jox ko mu naan bernde ko toppatoo ko ba mu bëgg lool kontaan nee na bokk na ci jëf yi nga xam ne ñoo gën muy mbégte moo xam ne da ko dugal ci xolu jullit waaye it mu ne njàqare goo xam ne danga ko wuññi wuññil ab jullit nit ki nekkoon ci jaaxle nekkoon ci problème nga fexe ba jaxle yooyu ak problème yooyu nga teggil ko ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ci jëf yi nga xam ne ni moo gën bokk na ci ba tey nga ñëw nga fekk mu xiif nga jox ko mu lekk ba suur te defe naa ne nit bu wooree ba jant so kenn werantewut ne xiif na kenn werantewut ne mar na yow nag nga fexe jox ko lum ndogoo mu lekk ba suur naan ba mandi loolu pay ga kenn xamut nu mu toll ca kanam yàlla ëllëg subhaanahu wa taala waaye nag mbokk yi addis bi ñu koy lu duñu wax sax arab bi yonent bi nee na déglu leen bu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na boo jëlee benn tàndarma benn tàndarma nga jox ko nit mu ndogoo ko tàndarma boobu suñu borom daf koy jël di koy yafar di koy yafal di koy yafal ba yowmal xiyaam mu ne comme ni kenn ku ci nekk bu yoree aw moolu fasam ni mu koy yafalee wala mu yor am xar ni mu koy yafalee muy gën di rëy nee na sa doomu tàndarma boobu noonu la ko suñ borom di yafalee ëllëg yowmal xiyaam ba mu nekk loo xam ne day tollu jabalu Uhud mbokk yi gis ngeen loolu kon lu am solo la ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñi nga xam ne ñooy waa Nestlé di ñaan yàlla barkeel seen société bii di ñaan yàlla itam lu ñuy jaay muy jar waaye it di dimbale ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom itam ñi fay jël seen wërsëg sunu borom di leen taxawu di taxawu réew mi di taxawu Sénégal di taxawu mboolem kuy liggéey ci société ba ka ci gën a kowe ba ci gën a suufee ñoom ñëpp yàlla na yàlla taxawu leen dimbale leen ndax dégg naa ko ci yeneen i quartier yoo xam ne def nañ ko fa mboolem fu ñu ko mën a def rek sunu borom yàlla na ko nangu bi jaahi salawaatullahi wasalaamu alayhi mbokk yi ñu ngi leen di jégalu bu baax di jégalu al ustaas bii nga xam ne suñu rakk la toog ci ñi ne moo daan def waxtaan wi di ànd ak ñoom ñu ngi koy jéggalu xëy na jox nañu cër bi nee na ñàkk déggaloon ñàkk yëgante ba ñu ne ma yaay def waxtaan bi mais sóoraale wu ma sax day ñëw mais heureusement moom itam bu mu ñëwee mu am war ma ak cël ne ma comme demee na noonu jëlal nga def lépp euh, cërale naa la ko ñu waxtaan bu ñu paree ñu dem adara ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñu koy wax oustaz euh, Guèye conférence xaju diggante 5 heures ak ngoon ndax ku xam lii rek.